bay fal ñu ne ñu ne sañ-sañu señ Touba la señ Touba le ma sañ ci liñ hmm man nak dama ne mako hmm te yag na ko bañ a d'accord. te mhm. musuma ko wax ci télé. moy mhm. sañ-sañu yalla mom mhm. señ Touba du ñëwaat di ci tegaatub sañ-sañam. deug la señ sañu yalla señ Touba du ci tegaatub sañ-sañam. bay fal yi li ñu nekk nii. du sañ-sañ bu len señ Touba de. suñ borom la bu yonent bi dundu yoon wa dé señ touba ñew ne li mustafa nawaytu ma yu wa inni ahmad deug la naka la yonent bi dundalé dundug Baye Fall. la ñuy ñëw. Baye Fall nag du tur amutu tur kon maanaam amul nenn num tudd na. ki ko doon dund daa nekkoon mat ñu bàyyi te sant faal donc ñu naan ko Baye Fall. waaye benn affaire la bu mu yoroon di ko def. te tuddewu ko nenn ñu jekki jékki bu nekkoon ca njóobeen gi ñu naan Baye Diop bu nekkoon ca saween gi ñu naan Baye Saw. amutu benn philosophie la boo xam ne. ci biir l'islam la bokk. ñu koy appliqué te amatu dama cee bëgg a indi loo xam ne ku leen ko bàyyee. yow yaay yéefar waaw. ndax yonent bi sallallahu alayhi wa bu fekkee da ngay ne Baay Faal yi duñu ñu julli moo tax du ñu dara yonent bi am na cinquante trois cent ci àdduna doog a laal jëwam bii ci suuf waaw am na juróom fukki at ak ñett doog a julli am na quarante yoo xam ne moom lislaam ñëwut ci moom yor na lislaam ci treize ans te digaluñ ko mu julli dégg mm-hmm. lislaam ji mm-hmm. ba muy door yang sallallahu alayhi wasallam ben bat la yoron di wote muy day ñew ba ci yow la qul la ilaha illallah allah tuflihum waxal la ilaha illallah nga texe waxal la ilaha illallah nga texe so waxe la ilaha illallah len leen fa nekkon ci jaamu yalla ndax bobu hadisi yi alquran it ma nga ci lam ndaxus ñëwagul kon mënoo mënoo ne limay def dama koy tololek sunna wala dama koy tololek tere bi la ngay wax la ilaha illallah te top ci ginaaw yonent bi bu la digalee nga def bu la tere bay bu la digalee nga def bu la tere bay bàyyi loolu moo nekkoon lislaam fukki at ak ñett julit ñi dund nañ ko ci màkka kenn benn julit mësta julli benn julit mësta woor benn julit mësta natt asaka benn ñi ngi dëkkoon ci taatu kaaba gi te mësuñu aj mhm. te ñi ngi woon ci diine mhm. kon boo bëggee tey nga ñëw ne julli gi ak wor gi moy diine ji kon xamoo diine mhm. ndax diine nek na fi mhm. ay nit japp ko ba faatu ci dugg aljana yaay xadija tay ku ko dekkaloon ne ko julli du julli mhm. ta moy yaay jullit jullit la ak sahaba yu bari sumaya ak ñu bare bare bari ñi nga xamne makka lañ faato koo ci taxawaloon fi tay ne ko jullit du julli ta mënoo ko génn ci diine ji ndax bu yomal xayaame yéenay bokku ben ram so ne diine ji matut won booba diine ju matut kenn du ci dugg aljana balaa nga koo xam nga yor aw nga yor 9000 bëgg a jënd luy jar 10 000 du dem baa ma bëgg laa woo dind ci benn chiffre yu ah, ah téléphone bi sax boo amul boo amul chiffre yu mat doo woote. Mhm. kon donc l'islam bi daa mat. Mhm. doo ko mën a dugal kenn àjjan. Mhm. l'islam bi daa mat doo ko mën a teg kenn ci aw yoon bi ko wooyee ab jullit. l'islam mat jooju saxaaba yi yoroon ca Makka fukki at ak ñett. l'islam jooju doxalin woowu. la sëñ Touba jël jox ko Cheikh Ibrahima Fall mu di ko dox. nga xam ne booba. te booba da ngay nekk jullit tay tay tay maanaam mën ngaa nekk jullit 11h midi jot yonent bi ne gàddaay yow ñàkk nga sa kër ak sa bitig bi nga yoroon. mën ngaa dugg ci lislaam 11h midi jot yonent bi ne ndigal ñëw na nan dem geeri dañ lay rey ci midi ji. nga xam na yow wut nga ci lislaam amatoo lislaam ji rek moo am ak ndigal rek ngay dégg mhm. nga li ma bëgg a wax. léegi nag kon mu des ci. lan moñu ñu ñun ñi nga xam dañ na ay mourid lañ ak nga xam bay ab bay faal la mhm. ba ñun liñu yalla tek teg ñom na wuñ ko mhm. ma bëgg ci indi njàngale mu ndaw moy mhm. par exemple waqfu lillah xam nga ko yaakaar ñu bari xawma ah, murtala dañu wax alalam daf ko def waqf ba nga xam li tek ci sama alal tegatu ko ci alal señ murtala parce que dañ ko waqf manam ñaari saret? bu amone wala ñaari mbam wala ñaari beuy béy wii ñu ne waqfu nañ ko ci ci lislaam mm-hmm. béy wii ñu ne moom kenn waqfuwu ko mm-hmm. maanaam si at yamatul ci sariya mm-hmm. sariya dina topp béy wi ñu waqfuwu te du topp wee te fu nag nit yàlla da koo nangul lislaam dafa nangul nit def ko boppam mooy jël sa bopp sarax ko lislaam loolu la loolooy di Baay Faal nag ndegam ñaari béy donc benn béy maanaam ñaari otob sëñ Murtala bi nga xam ne da ko waqfu ci diine ak otob Baay Njaga Njaay yemunu ñub atté ci Islam. kon ki waqfu bopam ci Islam, naka lay yame ak boppam naka lay yame ak ki waqfu bopam ci lislaam mhm. xam nga lolu ab sew sew deug la bi ci dess moy nga ñew fekk ci lislaam ab jam mhm. bo xamne man na am Mamor mbay mi dong wala mhm. jamu musa jang ci Castor wala ken moko mom nga xamne ne mom jam la ci ki bo ñewé ci wor dañ ko amal ruxsa ak yombal boo ñëwee ci julli dañ ko ci amal ruxsa parce que jaamu Mamor Mbaay la mm-hmm. waa léegi ci nangum njaam moom nga xam ne jaamu yàlla la boo xam ne dafa jël boppam def ko wax waqfu lillah mm-hmm. ruxsa bi ba tey dox ko ah, pourquoi kon nga bëgg taxaw fi nga taxaw yow kii waqfu boppam ci lislaam nga bëgg ne ko nooy bokk benn atte te bu doon ñaari sareta doo ko nangu bu doon ñaari biis doo ko nangu bu doon ñaari kaase café sax duñ ko nangooti duñ bokkati léegi ñaari nit ñi ñi daje te kenn ki fu boppam ci yàlla kenn ki waqfuwut mënatu noo yem mm-hmm. dégg nga loolu sew sew bi nga xamne ne lu set a la nga deg ne bay fall yéefar la parce que wul ma ngi jéglu ci cadeau gi sax waye loolu da am ko bi jangale dama koy wax yéefar na koku kuko wax yow yaay parce que kufru tu arab dong la kufru sa yoo ko déggee boo ko firee weddi mhm. la bay fall yefer la laaj ko lu weddi man ñoo ko ne woor gi yàlla wu ko wala yonent bi yàlla wu ko wala alxuraan du alxuraan wala masalik gi waroon ñu ko tabaxal maanaam lan lañ weddi mhm. ku wu dara nga ne ko kéefar nga yow yaa yedd yàlla mhm. lu tax Baay Faal nekk jullit mooy lum jàpp mhm. mooy la ilaha illallah ba bu boo jekki-jekki woon dégg fii ay booy romb la laa ilaha tam nga ne déggal Baay Faal yi ñoom seen identification lañ ko def mooy la ilaha illallah dëgg la laa ilaha illallah nag mooy diine seul ku ko jàpp jàpp diine ku ko bàyyi bàyyi diine su ma taxawoon tey ma ne man de man maa ngi mat mii dañu dañu diyoo mat jang na jàpp laa ilaha illallah man ma dem jàpp julli ma bàyyee ko laa ilaha illallah dem di julli junni rakka sunu deewee man maa yéefar bi ndax damaa dugal laa ilaha illallah ci li may def su ma ne woon man zakat laa jël zakat asaka rek laay def mhm. du ma def laa ilaha illallah di def sakat di def sakat bañ bokk dé ké di def la ilaha illallah bis bu né ben per may def laa may def sakat bis bu né jouni milliard mhm. suñ dé ma yéfer bi parce que dugaluma la ilaha illallah dëgg la bu dugg dara baaxut mhm. woral jouni fan ta jappo la ilaha illallah kon ñoo li ñu jàpp mooy diine ku ko japp japp diiné ku ko bayyi bayyi diiné deug la te ba fi ñu taxaw di wax ak yow nit man na dugg ci l'islam du julli du wor asaka du dem makka te bu dé dem aljana mhm. diggante takkusaan ak timis don boo ñëwoon julli takkusaan ba noppi nga ñëw ne dugg naa ci lislaam dafa timis nga faatu julli woo wóoroo asaka woo tabax kenn du la njëkk aljanna waaye kenn du dugg lislaam kenn du dugg aljanna lu dul da ngaa wax laa ilaaha illallaah dëgg la comme ni ko Baay Faal yi def d'accord naa de dégg nga kon ñàkk xam-xam mënta tax ñu bëgg a jàpp ne loolu du bokkul ci lislaam mhm. Mhm. daf di kay loo xam ne bu ko sëñ Tubaa jëloon yoonal ko ci ñëpp du bëri taalibe mhm. ak Mbaye Fall. Mhm. maanaam dama koy wax benn benn wenn bu ma waxtaanal ma ne ko ci woor ba ngoon toog Baye Fall bi yenu bóolib ndawalam indil ko ko jox ko ko mhm. mu xoolut bóoli bi fi mu jaar ba yegg fii mu jàpp ne kooram gi moo gën bóoli bi mhm. xamul yàlla parce que Baye bi ni mu def ba indi bóoli bi boo ko boo xamee rek sa yaram day daw dañ lay téléphoné ne la ñëwal indi at xaalis xaalis moom kenn du ko laal ay mën noo wax lu ne waaye indi koko wax mu tàmbalee xalat dañ nan baye bàyyi dañ naan la indi nga genn joxe bo demee joxe ko ba nopi bëgg dem ñu ne la déet takal sa ndig li nga tak ya indi xaliss bi de nga tak sa ndig ñu na demal ci daral ga jëndi koy nak nga dem jëndi koy nak nga ñew ñu la rendil nga rend ñu la fessal nga fess ñu la tojal nga toj ñu la talal ci mbana yi nga tal di yëngal bam yegg nga taxaw ñu la yanul nga yanu di dukk dukki di dukk dukki ba ci buntu kër ñu na la tégal fi nga tek japp na sal jek sa coono bépp dang ci mos ñu ne an dëpp li tax ñuy depp yi yalla ko mom baye nañ ko ko soxlaatuñ ko buñ ko gess dem di wuti waat loolu andi waat Li bu ko yalla defoon mudik jaamu bari na ño xamne duñ ko jaamu ñoom barki borom tuba déedéet ak beccëk billahi amna ño xamne genn beccëk mënu ñu ko nekk bay fal <laughs> buñ ci genné tak tak njaray ak tak jàll eh, mm. jalambaan yeeg bagas yooyu hmm. teg Mbaye Fall ni ko sëñ ni ko Seex Ibra tege hmm. am na ñoo xam ne génn bëccëg du ñu am yàlla ñoom moo gën a julli dañuy dem julli ji wér di